nee na itam di sant yàlla bu baax nag ci xew-xew yii jàll nga xam tiitoon nañ ci lool ba yaakaar ne bakkan yu bare dina ci des dëgg la am na bakkan sax yu ci des xeebu nu ko parce que ña mu demal xëy na lenn la ci ñoom waaye mënoon naa gën a mel la jot a dem ci ay bakkan yàlla na yàlla yërëm waaye li des it yàlla na leen yàlla jéggal waaye li des nii di ñëwaat ci kanam yàlla na gën a set man damay wax ne tànn njiitum réew tuur seret waru cee bopp ak faat bakkat parce que daf ko jaww yonent bi nee na addina waawu addina nee bu ñu la koy peser ca yàlla tollul ni laafu yoro addina wërngal këpp poids ba nee na tollul ci yàlla ñi laafu yoo te ñi ñuy dénk dénk ñu leen àddina kon topp deret doomu aadama moo ëpp doole am réew moo tax lu nit mën a def ba bu ñuy tànn njiitu réew topp deret sax du wadd parce que ndénkaane la loolu day moo gën fuuf ci askan wi parce que ñi teele ñoom tey ni ngay wër kanu demle fan la jëm ña gaañu ña nga tëdd hôpital ña falu falu ña ñàkk dem tëdd ci seen i mbokk waa ka moom def nan moo tax tant que demuñ ba yegg ci ne waaye indi ma téyel leen seen alal te dinu agressé loolu nit ñi war nañu dund ba xamal politiciens yi ne leen ñun bëgguñu lool nañu fexe ba ku ñuy dénk nañ la dénk rek ci ndànk boo ñuy delloo nga delloo waan ñu ci ndànk responsabilité la boo xam ne kuñ ko dénk ñëpp la war a séq di la ñaanal nga réussir yow it nga war a tiit ak di jongru di xool bu baax lii ñu la dénk naka laay def ba réussir waaye bul tàcc bul manifester bul kontaan ndénkaane bii mu la dénk ah lu ñuy ëlëk ëllëg ca kanam Omar bun Abdul day bi ñu ko dénkee noonu la def Omar bun Abdul ku mënoon boppam la daan doxi soxlaay boppam bi mu nekkee ci boppam ñépp xam ne mi ngi ci boppam kenn du ko gën a rafet yére kenn dàqu ko lekk kenn dàqu ko naan kenn dàqu ko sañse fu nit yi dem mu dem même ñëpp waaye keroog bi ñu ko annoncé ne ko yow la ñu wax ne yow la ñu tànn pour nga jiite dafa mel ni siditam yëpp dafa takk dafa yegg suuf daf ko fekkoon mu taxaw mais daa yegg suuf ñu ne ko yow la ñu tànn pour nga jiite te laaju ko waaye ay nitale kii nu gis ak fi àddina bi toll fi réew mi toll ci njubam ci maandoom moom rek moo nu mën a sauver ci crise yi ñu nekk waaye bi ñu ko ko waxee daa yegg suuf téye boppam fan la jëm ak responsabilité bii ñu ko dégg mu ne bis ni tey réew mi ku fi xiif man la ko yàlla di laaj ku feebar man la ko yàlla di laaj bakkan bu faatu ci dudul deewu naturel nii rek man la ko yàlla di laaj loolu responsabilité bu rëy woo soxna yi woo njaboot bis ni tey day nee nañ ma man la ñu jiital ci kanamu guddi gi est-ce que xam ngeen loolu li muy pesé ci man ñu xoolal mu ne soppiku jot na ku jot na nag que responsabilité bii nu ñu dénk maa ngi leen di seedeel ne lu diis la ci kanamu yàlla te dama ko war a la layoo ma bëgg ngeen jàppale mu ci liggéey waaye li ma bëgg daal mooy ni ma daan dundee mënatuma ko dund réew mi desee luñ ma dara train de vie bii nu am nag fii ci kër gi damaa bëgg ñu wàññi ko parce di lekk ba suur mu am ñuy xiif ci biti loolu sama kersa mayu ma ko sama ngor mayu ma ko bëgg naa wàññi bu baax ni may dundee ba yëg ne maag baadoole yi may yilif ñoo yem tolluwaay ci réew kooku xam na responsabilité di ko jooy jooy yu metti nag kuy mbokkam rek te jege te nekk ci famille wam mu woo la ne la dama bëgg nag képp koo xam ne jege nga ma te déggal ma ñu changer dundiin ñun ñu sañ-sañu di dund dund bu fort ñuy yëg ne ci biir réew mi am na ñuy xiif loolu mënta nekk ku ci dégg loolu ku nekk loo yore ci alal dinaa la woo ci kanamu askan wi yëpp nga justifié foo ko jëlee soo ko mënul def dinaa buum alal jooju dugalaat ko ci biir keesu réew mi nañu fexe ba na nañu suqi sunu bopp ñu dooleel réew mi au lieu ñu suqi réew mi dooleel sunu bopp yàlla dimbali ko ñoom ñu fekk si ko ci loolu loolu moo ko may yàlla dimbali ko mu réussite ko ci lu matul ñaari at mu développé leen seen dëkk nañu ko bëggee ba sax jéggi njortu ku fa mës a jaar rek di buur jéggi na ba léegi histoire di ko bind ci njubam ci wax leen ko moo njëkk a instauré lampu état ak lampu këram fa muy nekk di liggéey la mu daan dundee ci këram mu ne du ko soppi de li nguur gi moom buy liggéey lu jëm ci réew mi da koy jël bu ñu wàccee ba ñu ne ñibbisi na mu taal lamp pétrole am bu lampam jeexee noonu la koy fay lu nangu jëfandiku ci pétrole bi réew mi moom loolu la gëmoon ndax ragal yàlla gi war ci bu ñu la dénkee alal nga war ko sàmm ak di saytu ba dërëm bi ci man ak at mu nekk nga taxaw rendre compte askan wi loolu na baax waroon nañ cee yegg bu doon ministère bu ñëw voté sa budget ba noppi ñu voté la cent milliards ba at mi jeex lépp nga def ko ci kayit tënk jébbal ko askan vérifier leen ba xam cent milliards yi ñu yi ñu ma joxoon est-ce que dugg na fi mu a dugg wala dugg noonu day bu ñu ko doon defee ñu bëri ku leen jox poste duñ ko jël duñ ko jël moom parce que leer na leen ne bu rendre compte jotee bu ñu ko def xalaatuñu ko njub googu lañ war a xaar ci politiciens yiy jiite ñu xam ne loolu moo yelloog li askan wi te loolu yàlla da leen koy laajaat amul benn jaam bu ragal yàlla lu dul ne dinañ la dénk lu bëri lu ëpp sa moomeel yow tuddoo tiit bu dee ragal nga yàlla di nga tiit su dee ragal nga yàlla mais nit ñun nag ndeysaan boo ñu dénkee dañuy dëkk dañuy dëkk loolu xel na nga ko ku ñuy dénk ngay dëkk surtout ñu lay dénk lu ëpp sa moomeel su dee ragal nga yàlla laa wax ku ragalul yàlla moom dara feesul ba tam waaye nit bu ragalee yàlla ñu di ko dénk lu ëpp moomeelam moom fitam warul dal xelam warul dal te kuy mbokk mi boo ko wëree da ko war di ñaanal moo tax nee na ngi leen di xaar ñu nekk ay nit yoo xam ne ñu ragal yàlla ñu ko nee ragal yàlla mooy poñe siditu caay-caay ba nit du mën a xiif xiif gisloo moomul nee na bu dee tomb ragal yàlla mi ngi sa xol nee na mooy rey sa sidit bi lay jëlloo ba doo mën a jël waaye bu fekkee sidit boobu deewul su fekkee leeru ragal yàlla mënul lakk sa siditu caay-caay nee na loo romb jël ko boo bëri la woon sax boo romboo di nga ko jël waaye bu ragal yàlla boobu nekkee ci yow loo néewle néewle soo romboo doo ko laal su defee nee na loolu itam nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax nee na ragal yàlla mooy tax boroom am am ci yàlla dénk mu am du bew ci du ko won boppam du ko wan dooleem du ko won alalam du ko won na dundam dafa mët ragal yàlla may tax dafay tiit sax di manifesté wu am amam ci kanamu ku kii nga xam ne amaan na amul lu mu lekk te loolu léeg-léeg mu dal doomu aadama ne ni itam ragal yàlla boobu mooy tax nit kattan gu ma mën a am lu mu bare bare du tax mu torturé doomu aadama am na ñoo xam ne doole ju lépp won la ko waaw buñ la ëppee doole daanu wan na daanu la toroxal xam xamul ne doole jooju du sax doomu aadama day njëkkee néew doole amaat kattan néewaat doole waaye nee na bu ragal yàlla nekkee ci yow force yooyu même bu la ko yàlla dénkee yow doo ko ñemee utiliser doo ko ñeme laa parce que da nga naan lii yàlla daf ma ko dénk rek waaye doole alalu yàlla la am am alalu yàlla la ku mu ko dénk nee na nga rafetal ca rek su ko defee nee na yooyu yëpp mooy delloo si aw askan te nee loolu dara mënu ko def ci doomu adama lu dul ñu jàngal ko mu ragal yàlla lépp lu mu ciy def mu xool digganteem ak boroomam mais du xool si mu jàkkaaroon parce que am na ñooñ ku xool sa digganteeg ñoom dootoo jëflanteeg ñoom lu baax de mukk yow yaay xool sa diggante ak sa boroom rek di jëflanteeg ñoom lu baax ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu dénk yàlla yombalal leen kattan ba ñu mën a def loo xam ne dana satisfaire askan bi ci wér gu yaram ci dund ci euh, njàng ci lu ne bu bu ëllëgee mooy jébbalaat askan bi ñëpp ne alhamdulilah rabbil alamin yal na leen ko yàlla defal salaamaaleykum wa rahmatullah